tey dinañ ko defaat parce que ñoom ñëpp nag gëm nañ ni suñu demee élection présidentielle te son ko fekkee ko duñu gagné ak ku mu nekk candidat si ñoom néew ma Ousmane Sonko mooy gagné de waaye ñoom xam nañ ni bu ñu demee élection te Ousmane Sonko nekk candidat duñu gagné. ay juriste dañ ma woo barki démb ne ma ñetti ministre dañ leen woo.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 muy 94 milliards yi ngeen di dégg est-ce que xam ngeen 94 milliards lu mu doon boobu moo gën a garaaw sax rapport cour des comptes bi ñuy wax est-ce que xam ngeen loolu peut-être cour des comptes bi li mu tombeek feebar bi moo tax mu toll noonu mais 94 milliards moo gën a garaaw yàlla natt ko moom moom Amady Diouf bi mu génnee foofu ñu nommé ko procureur bi mu demee dafa fekk rapport OFNAC ndax bi may déposé dama déposé nag déposé IGE déposé parke bi parquet bañee instruire dossier bi laa dem déposé ci juge bi avec constitution de partie civile rapport boobu mi ngi ci table li tax du ko traité waa nag ne li Ousmane Sonko wax yépp dëgg la daa di génne lubal yi ba pare génne yeneen vingt 26 dossiers yu bokkul ak 94 milliards yi yeneen 26 dossiers bii 3 milliards bii 7 milliards bii 14 milliards boo ko dajalee yépp war na jege 200 milliards looloo gën a garaaw fuuf li ñuy wax nii. daal koy jox procureur ne ko ubbil instruction contre Mamour Diallo ak ñi mu ànd ak ba tey yi justice tëg teg ci tànkam gis ngeen suñuy ndaw yu ñuy rey daaw jéeg bi affaire bi amee Macky Sall dafa ne dañuy teg commission d'enquête parlementaire ba sànq ba tey kenn waxul commission d'enquête commission d'enquête gouvernementale ba tey jii ma wax ak yéen commission d'enquête amul fukki fa fukki bakkan ak ñeent américain bind nañ ci ne ñoom mun nañu firndeel ni au moins fukk yi état du Sénégal moo leen rey ba léegi enquête amul ba ñi ñu mujjee rey daaw ci mois de juin fële ci Ziguinchor ak Bignona gis ngeen tappale yi nga xam ne procureur Ziguinchor mu ngi koy def ñu jox la rapport d'expertise ni ñii bal moo leen rey nga jël dossier bi jox ko un juge d'instruction ne ko wax ma lan moo leen rey juge bi delloo ko dossier bi ne ko rapport bi wax na li leen rey ba pare yow kay da ngay ñeme daal di ubbi une info euh, une instruction ñeme woo nga teg dossier bi nga xool man mii di wax ak yéen rek déposé naa ay plainte déposé naa plainte contre Mamour Diallo pour complot association de malfaiteurs ak yeneen déposé naa plainte contre Adji Sarr déposé naa plainte contre maître Gabisso déposé naa plainte contre Sidi Ahmed mbay déposé naa plainte contre euh, maître El Hadj bu mujjee boobu rek la ma parquet général woolu ne ma ñëwal confirmer sa plainte ma dem confirmer sama plainte yeneen plainte yëpp dégguma ci dara te pour pourtant il suffit nit sëqat rek ne maa ngi dem déposer une plainte contre Sonko nga gis seen ñu mel ni euh, euh, ay nit ñu jëfuur procureur di tëb di dal ku ne nekk ci parce que li ñu leen sant mooy góorgóorlu leen ba fukki weer ak ñett yi di ñëw lu ngeen ko mun a jaarale mais utal leen ñu loo xam ne Ousmane Sonko du nekk candidat waa lii lépp soo ko dajalee ci justice nga boole ko nit ñi ñuy jàpp chaque jour démb nit dafa ci mujj démb ñu jàpp ko te nit taxaw na fii ne rey leen Ousmane Sonko procureur waxul. ñun dañoo dem ba léegi mbir mi daf ñoo soof moo tax dematuñu duñu duñu déposer ay plainte soo seetloo bis bu ne nit saaga ñu attaqué ñu saaga xeet gu ñu bokk saaga région bi ñu bokk nga xam ne lu garaaw garaaw la ci équilibre réew mi doo dégg mukk justice yëngatu boo waxee ñu ne dafa attaqué institution judiciaire moo tax ma ne ñun benn adversaire la ñu am ci politique jamono jii ndax ñoom la Macky Sall di jëfandikoo Macky Sall xam na ni moom ak parti am ak coalition xajuñu ci ñoom wallaahi xam na ko te Omar Baxam Diallo mii jël ordonnance am démb billaahi wallaahi wataalaahi xam na nit waxul dëgg bu wéeteeg boppam xam na ni waxul dëgg xam na li mu def du droit xaw ma nag ndax dañ ko menacé wala dañ koo jox xaalis wala mbirum mbokk la moo xam waaye xam na ne li mu wax démb du droit moo tax ñu wax nit ñi nag nii ñun dinañu xeex <coughs> man de li may wax li ma waxoon 2021 lay waxaat constitution dafa ne ku ñu bëgg a jaay doole am nga sañ-sañu xeex am nga sañ-sañu résisté Macky Sall dafa a xam ni li ko tax sonn mooy nu muy def ba toogaat ci réew mi tée réew mi su ko jaralee benn ñun li ñu tax a so sonn mooy fexe ba réew mi teguwaat ci yoon démocratie ñëw fi alal réew mi des ci réew mi sàcc mi jeex fi loolu jaral nañu téeméer moo tax bu yaakaaree ni police ak gendarmerie moo ñuy tiital ñun ndax na boppam injustice bi bëri na ci réew mi manifestation sax mënatuñ ko def te chaque jour ñu autoriser leen ñoom loolu ñëpp a ngi siy teg seen bët may wax ni droit boobu ma waxoon man 2021 ne j'invoque mon droit moi Ousmane Sonko mon droit personnel à la résistance ñu dem créer seen dossier ne appel à insurrection tey laa ko gën a wax ni buñ ci tollee parce que mi baa ngi dem de mais dinañ xam ni mën nañu lañuy ñuy def te ñeme nañ ko booy dee ci àll na la gaynde rey booy daanu nanga daanu avec dignité nit boobu sa dignité jóge fii dara desatu fi man loolu laa gëm te gëm naa ni ñu ànd ak man yépp loolu lañu gëm ma yokk ci nag ni kilifa diine yi ci réew mi mbir mi bi mu amee daaw jéeg man demuma seeti kenn dew ci benn kilifa diine ne ko wax ci dew ci benn kilifa aada ne ko wax ci xam ngeen lu tax ñaar rek moo tax benn orma gi ma jox kilifa diine yi ba yenn yi duma ma bëgg dugal leen ci dama naan nañu def li ñuy def rek lu yàlla def ñu xam ni lii la ñaareel wax naa leen ko léegi dama gëm ni dama gëm yàlla d'abord waaye gëm ni askan wi tax ñuy sonn askan woowu du toog di ñu seetaan ñu ñuy faagagal moo tax bi may wax askan wi laa waxal mu amoon nag ay kilifa diina yoo xam ne teel nañ cee àddu wax ci wax ju am solo ñu ràññee ci ku lim juum nag waaye ñu ràññee ci sëñ xab sëñ Habib si da baax yeneen ngi fàttewul tax ta fàttaliku taxawaayam te li mu doon wax bu ñu ko teeloon dégg mbir mi du egg foofu mu yegg noonu yéen ciy fàttaliku sëñ Fallou Mbacke Jumaada rahimahullah nga xam ne ci diggante bi yàlla def na li gën ci moom lam ci doon wax buñ ko déglu woon mbir mi du egg fi mu egg ba li ci yàqu-yàqu ci ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci seeni xutba nee naa ko lim juum ay imam ay ay ay ay ustaz ay prêtre am na ñu bëri ñoo xam ne waxoon nañ ci te ñun du ñoo dem laaj leen ne wax leen parce que dañoo jàpp ni bu ñu bokkee réew mi ñoom ñuy suñuy kilifa ci fànn googu ñu nangul leen ko bu ñu gisee lu nar a yàq réew mi aajowul ñuy xaar ba ñun ñu ñëw ne leen wax leen ci parce que tuuti nañ torop ci wax leen lu ñu war a wax ak lu ñu war a def waaye malheureusement kenn dégluwul woon ba mbir mi egg fi mu yegg bi mu yeggee fi mu yegg it gëm naa ne kilifa yëpp def nañ ci liñ ci mën a def waaye sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér dafa jël ay ndaw yebal leen yebal ndaw gu mat ndaw nag muy sëñ Basiiru Poroxaan bi mu ñëwee ñun ñëpp dañoo daje fii lañ ko recevoir hôtel Mamoun yéen la la presse na ngi woon foofu mu wax ci kanamu àdduna yépp nag parce que du loo xam ne dañoo tëj woon ci néeg di ko wax moo tax xawiwuma fi sutura li may wax yépp su ngeen duggee léegi ci YouTube gisaat vidéo yi mu wax ñépp dégg ko mu ne kilifa gi dem moo ma yónni nee na daf leen ñaan ngeen teg mbir yi ci suuf manifestation yi ngeen war a def suba ak fan yi di ñëw ngeen may ko bàyyi ko waaye yemul foofu li ngeen xam ne moo leen métti ci réew mi na ko tënk ci kayit teg ko sama loxo ma yéet ko ko moom dina ci dox lim ci war a dox bi loolu amee ndax dañoo amoon ku dañoo am kuréel gu tudd M2D mouvement pour la défense de la démocratie bi mu amee mouvement bi yëpp daje waxtaan ñu ne kilifa gi ñaan nañu nañ ko ko nangul looloo indi woon dal bi amoon ci jamono jooju dafay baax ñu fàttali parce que jamono jooju bu ñu bàyyi woon xale yi continuer li ñuy def ñaari fan lañu ciy teg ñaar moomu mun am soit nguur gi dina daanu wala li fiy rot ci bakkan dina bëri trop man ca lañ ma doon doog a bàyyi le 6 laa génn ma jël le 8 laa génn le 8 mars ma jël sama responsabilité fii ci salle bi laa def conférence de presse leader yëpp nekk fi ne leen nii la demee nii la demee m 2 def conférence de presse ñu ne kon mbir mi ñu ngi ñaan ñëpp ñu bàyyi mu sedd kenn ku ne dellu këram loolu nag doonoon ndam ci senegal ndax àdduna bi yëpp dañu ne xool leen modèle sénégalais bi du tubaab moo jóge fële ñëw àtte suñu du Nations Unies moo ñëw àtte ñu du Euh, Union africaine moo ñëw àtte ñu du CEDEAO moo ñëw àtte ñu ñun ñoo am suñu modèle fii ci biir réew mi